waaw dañ koy waajal comme nu ñu doon waajalee yeneen match rek malgré xam nañ ni bon instant nii phase de poule yi jàll na instant beneen compétition mooy commencé loolu xam nañ ko bu baax a baax da am nañ groupe boo xam ne bon am nañ expérience ñu boole kook ay jeunes kon bon gars yi xam nañ bu baax a baax nu ñu waree préparer match bi bu baax a baax Côte d'Ivoire Zambie ku ñu si doon am tamit nu ñu ko war a waajal nañ koy waajale te comme li ma wax rek coupe moom soo ko bëggee jël doo tàmm adversaire booy jouer quoi da ngay prêt pour adversaire yëpp te ku bëgg a gagner tamit du mënoo éviter grand yi quoi en fait malgré match bu décisif la mais ñu ngi koy waajal comme ni ñu war a waajalee suñu match. ndax pare ngeen pour affronter public bi parce que public bi ñoom lañ fi nekk. waaw bu baax a baax comme li ma wax rek dañoo génn pour ñëw jouer si quoi de public bi sax duñ ko sóoraale amuñu ak affaire bi ñun zone euh, Côte d'Ivoire ñu am affaire da affaire yi si terrain bi lay jaalu quoi. si kaw public bi am na ñu koy gérer quoi bon ñu tam suñu supporter dinañ ñëw ñu ngi leen di invité pour ñu ñëw en masse soutenir bi. tey la leen gën a soxla si phase yi après affaire ça se passe sur le terrain terrain bi la foofu la de foofu la duel yi di am de foofu la vérité bi di génnee quoi. waaw réaction comme euh, dañ ko jëlee comme ni ko war a jëlee rek parce que ñun buñ ñu joué suñu match Guinée bu mu jàllee nañ nañ nañ xam ni beneen compétition mooy commencé.

loolu lañ préparé quoi. biir groupe bi nan la demee keroog gis nañ Moustapha Seck Seck plutôt Abdoulaye Seck bi ñu ko joxee euh, li nga xam moo di trophée bi yéen ñëpp ko fekk euh, fi nga xam moo di conférence de presse bi pour féliciter ko ngeen dem ba tuddee seen bopp waa néeg bi yow nan ngay dundee biir groupe bi commencé go compétition bi. waaw biir groupe bi moo ñu fi bàyyi ba léegi ah bon bu ñëwee commission ba léegi yéen ñàkku ni yëg ngeen ni bon da ngeen dégg ñu ne équipe bi am na problème équipe bi am na problème mais.

muy sekk léegi kenn képp ku ko mënti jël ñu ñëpp dañuy ñëw feete kook yow bokk kook yow de loolu mooy groupe bi quoi en fait.